musiba baaba kumba amati ci kaw tali bi benn accident bu doy waar moo daal di am niki alarba ji booru ñeenti waxtu ci ngoon ci fii di bokkal dib commune bu nekk ci département bu Dagana bu ñu sukkandikoo ci waa APS ñu joxe xibaar bi nee na ñu musiba boobee ñett ci ay doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan gannaaw gi it juróom-ñaar amee nañ ci ay gaañu gaañu yu métti ñoom juróom-ñaar ñooy nga xam ne nag dañu amee ay gaañu gaañu yu métti daal di nañu leen rawale ca service d'urgence bu hôpital bu Richard Toll bu ñu sukkandikoo ci benn source hospitalière waral musiba boobee nag moo di eh, pono yu minibus bi moo daal di éclaté ci jamono joo xam ne minibus boobee mu nga bàyyeekoo woon ca Fuuta ci jamono joo xam ne dañu suuli woon ab néew ba ñibbisiwaat kenn si juróom-ñaari doomu aadama yi nga xam ne ñoo amee gaañu gaañuy yi mu nga fekk baax ca cees ñeneen ñaar ñi dëkk fii ci Ndakaaru ñeneen ñu ci des dëkk ci benn dëkk bu ñu naan Loboudois nekk ca département bu Podor li nga xam ne nag moo di ñetti néew yi nga xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan ñooñee moom daal dinañu leen yóbbu ca centre de santé bu Dagana